nuyoo baa ngoogu te moo di asalaamaaleykum tey nag ñëwaat nañ ci beneen méthode ñu koy wax banaana ñu fas yéene jaamu yàlla ci jaamu yi ñëw ànd ak yéen ci lii nga xam ne gis ngeen ko mu téye muy lan muy banaana waaye nag waxuñu ñam bi ñuy waxtaane tey ci xott wi xott wi mooy lan mooy lii ngeen gis kon lii waxuma ko bu dee sekkee yi nag moom lii leen gën a soxla waaye ñu ñëw ci njàngale mi soo xoolee doomu aadama dafa bëgg kanam gu leer kanam goo xam ni dafa am ay picc mu fexe ba picc ya lu yitteel doomu aadama la rawatina na suñu mbokk jigéen yi kon lii nuru mbalit loolee nga bëgg mën na ci dara muy lan muy fexe ba picc yooyu dañ ci ji ak ci kanam bi noo koy def mooy dangay mel ni rek comme noonu ngeen di far di def tocc mi ko nga xam ne lii lu weex lii moom ngeen koy raatale seen kanam bi day day mel ni rek koo xamante bi dafay def crème ci maanaam xar kanam bi day mel ni ku koy tabax rek. yaakaar naa loolu ma leen ko jàngal xam ngeen ni ñu koy jëfandikoo soo leen ko raatalee seen kanam bi ba mu tooy ngeen bàyyi lu mat cinq minutes suñu gell ak ay picc tan bëgg mu rëy bu ngeen jël xottu banana bi di ko fompe rek day daal day bi ci topp mooy ki nga xamante dafa bëgg ay bëñam set maanaam bëñ yu weex bu pare boole ko dëgër day fexe ba jël xott wi di ko forate ci bëñ yi waaye nag na ci def ndànk rek ndax kii bind dafa tuuti maanaam aw vitesse xaj kon yow mi def na nga ànd xel defee ko étape ndànk par ndànk ndax liñ ci soxla mooy na nga koy forote ndànk rek bu yàggee bëñ dee set wicc te day dëgëral bëñ muy lii waaye du looy def ba noppi di ko denc saa boo ko defee loolu sànnil bu ëllëgee nga defaat leneen te bu ko def benn yoon rek koy bàyyi waxuma nag koo xamante ni ay bëñam dafa xom nga bëgg mu weex waxuma loolu waaye koo xamante ni yàlla dafa laa natoo nga am ay bëñ yu weex nga bëgg mu gën a weex waaye ki nga xamante ni bëñ yi tamit dafay faral di metti wala dafay faral di yànq na ko ci forote loolu dina tax bëñ yi dina dëgër muy lii ba tey bu ñëwaatee ci xob bi gis na ko boole karité di ko togg ndax lii day seey karité googu nga ko boole li ko togg nag kon da am ñaari programme am nga karité ak xolli du banaana loolee ci lu mu baax mooy ñi ñàkk karaw suñ ko dee diw ci seen karaw gi partie bi ñu bëgg karaw gi yokk da gis ne deret du yokk